cag bi de fii nu mu demee rek affaire yi metti na te et xam nga rek da ngay mën a jàpp ci combat bi ndax nit ñi dañuy ñibbi te bu ñuy ñibbi dangay mën a mujjee def ay taw faaf lañ lay fay 1500 2000 nga mën a jàpp ci affaire yóbbu xam nga tamit metti na daal lii bu ci waay ay fii nga yem ay buntu Pikine ay Pikine à part Pikine mënoo fi yóbbu keneen ki nga xam du la fay 2000 gars mooy loolu quoi war nañ ci mën a jàppale tamit jàppale gars liggéey bi dafa metti te bi mooy loolu affaire situation bi di nga heure bi jot nii mu na ni gars yi ngi taafantikoo bëgg a ñibbi nii metti na metti na trop mais na ci jàpp quoi couvre-feu bu mënee dañ tamit jàppale gars yi ñun tamit ñu nekk suñu waa ñun càcc gi nañu dimbali quoi affaire yi metti na tamit dañuy nekk si kaw tali bi di jaayante mais xam nga rek gars des fois tali bi gis nga nu mu demee xol yi xat na mooy loolu nañ ci jàppale nañ si ci jàppale so depuis couvre-feu bi depuis couvre-feu bi la commencé ndax xam ñun ñi li suñu liggéey di taxaw fi yóbbu ay nit ñu da ngay woo dañuy bàyyi suñu yitte dem yóbbu la ay affaire mais xam ne bu ñu ñëwee ba taxaw fii grâce que affaire yi metti na ni mu demee la tamit nañ ci jàpp nañ jàpp ci affaire yi ñun cag-cag yi nañ des fois tali bi nii mooy loolu ah gis nga yaa ngi gis gars yi fu mu ne nii fii tey sax tane na ndax heure heure bii nii moto yi fi nekk moo tax fii day rang bi day taxaw nii moto yi day nekk mais xam nga rek bu ci mënee jàpp daal couvre-feu bi ñu teg ko tamit métti na trop quoi si salaamaaleykum bon maa ngi leen maa ngi tudd Matar waaw ñu xoolee daal bi couvre-feu bi démarré ba léegi ñu ngi fii di cag-cag daal di yóbbu gaa yi ñu ñibbi parce que tali bi dafa xat tali bi dafa xat te deux roues moo lay noppal moo gën a gaaw tamit waaw moo gën a noppal moo gën a noppale te moo gën a gaaw. mais des fois nag mu dox des fois du dox mais ñun li ñuy def nii jubluwuñ ci dara ñu def rek pour maanaam xool lu ñu yóbbu kër ga parce que am ñu métier dañuy liggéey ba benn heure bi wàcce ñëw pour xool lu gaaw rek ñu dem yóbbu nit waaw bon des fois nag mu neex des fois du neex mais léegi càq bi dafa dafa yàqu léegi am na ñoo xamante ne loo leen fay ñu yóbbu la ñoo leen fay ñu yóbbu la te du noonu parce que des fois nag di nga yóbbaale te yàlla tax da ngay sol essence boo solee essence 3000 wala 2000. nga yóbbu nit ki 2000 mu fay la ko wala 3000 booy ñëwaat dangay ngay indaale kon donc mënoo mënoo yóbbu nit ki def essence yóbbu nit ki di ñëwaat nga indi nit ki te yàlla tax booy demaat nga bëgg yóbbu nit te yàlla tax loolu du loolu duñ ci génn daal waaw bu ñuy dem daal dañuy def te yàlla tax dañuy jàppale ni moo tax ñëpp ñu ñëw fii di xool lu ñu waay fay bu baaxee ñu yóbbul bu baaxul nga xooli keneen. ngoon di commencé fii quoi. bon waaw ngoon la ñuy commencé parce que dañuy job ba ay côté 18 heures wala 17 ñu ñëw fii. ba vingt heures ñu wàcc. bon des fois di nga am trois voyages ba quatre voyages des fois nag nga am benn voyage waaw mais liggéey bi nag moo demee noon mais des fois da ngay am say client bopp dañ lay woo ne la wàcce nga ne non parce que yenn clients yi dañuy dawal coopération ñenn ñi dañuy dawal coopération bu ñu wàccee rek dañ lay woo ne la boo wàccee maa ngi lay xaar fii yow yaa ma yóbbu keneen du ma yóbbu. waaw gi nga ne bàyyi dëkk bi ñu ne demee de xam ñu ne ñëw suñu essence nga. war a mën a am dara yóbbu yaa ma gën a xam ay responsable lañ quoi xale lañ métti ñoo bëgg dara quoi war ñu koy jaayante nii mooy loolu mais tamit suñ client yi bëggul yomb client de ay 1000 francs fii fii ba géej waay boo sonné mu jeex voilà gars yi ñu fay 2500 yóbbu leen coow li jeex voilà masaan nag dimbali ngir yàlla corona bi loolu la fayatul la waaw corona am ah. sant yàlla rek sant yàlla bu baax yaa ma gën a xam mooy loolu. yaa la jàpp. yow ñaata voyage ngeen def Fatou Diouf. mun naa ay ay ñett ñeent. mais ngoon maa bi ngoon maa bi ko wax ngeen maa bi. mun naa ay ñett ñeent laay am. ma maa dëgg géej waay loolu dëgg. non génn ma génn ma si. Ah, non. vingt cent ma jàppale leen defal leen ko defal leen ko mille cinq cent. gama gi yorob sori. mooy loolu jàmm si yéen rek. mais yow lan mooy solution bi kon kii bi couvre-feu bi li yëpp du moo waral lii couvre-feu moo waral lii na ko arrêté na ko annulé ndax man business si guddi si guddi may missionné voilà. waaw. di ko annulé amul waaw man la Aliou Aliou Fall nekk fi si Dakar Petersen liggéey euh, cag-cag doon na métier boo xam ne nag yomb na yombul ndax métier confiance la képp ku liggéey cag-cag ku ne euh, il faut nga jub il faut tamit nga dëggu ndax ku lay jox bagage alalam la lay jox pour nga dem livrer ji ko mu yëkkati xaalisam jox la yow 1000 francs yi nga ci am wala 2000 yi nga ci xam ne lii la la yàlla jagleel. su ma ñëwee nag si côté bii nga xam ne mooy couvre-feu bi ak ni mu demee métti na lool ñun ñuy yóbbu nit ñi sax euh, neexuñu métti dafay métti lool si ñun ndax nga dajeeg sa moroom góor yàlla boo xamante ni dafa xëy liggéey wàcc xamoo lan la ngàndaayoo xamoo ñaata la yor nga di ko laaj ay 2000 3000 dafa métti maanaam Sénégal toll na foo xamante ni il fallait que rek président gëstuwaat dimbalewaat askanam xam ne bu xoolee autoroute bi ba fa yegg ñun ñu ñu yor moto yi sax dañuy sonn. démb rek yeb naa fi koo xam ne 4000 la ma fay Kër Massar léegi 4000 yooyu su ko bëggee boolee dépassam day métti kon il fallait que rek président gëstuwaat askan wi bàyyi leen xel bu baax xam ne nit ñi fa mu nekk ñoo ko fa teg ginnaaw yàlla ndax ñun ñoo ñun ñun la fi nekkal dèjà comme bu ñu fi nekkal ba pare di ñuy teg yenn yoo xamante ne àttanuñ ko na xool bu baax xam ne réew mi metti na waaw dëkku lislaam la dëkku sariya la ñun ñëpp bu ñu gisee ñu taxaw fii ñëw pompier di liggéey bëgg lu ñu yóbbu moo tax waaye mënoon nañoo am suñu client ñu ñuy woo ñu leen livreel sans autant que ñuy taxaw fii di yóbbu client yi ndax da gis koo xam day xëy ba wàcc cent franc du ko yor mais bëgg na rek ñibbi këram moo tax muy yëkkati ay deux mille trois mille du ko ci def te loolu dafa métti trop ba tax na daal ma bëggoon président mu jàllal bi ko at xoolaat askanam bu baax a baax a baax a baax xam ne feebar bi feebar la mu ngi si biir dëkk bi waaye tamit nañu takk masque moo gën daal couvre bi couvre bi moom amul sens day lor askan wi day métti euh, askan wi ndax nit ñi mënuñoo xëy ba ngoon jot duñu am fu ñu dugg boo jaaree fi léegi da gis ñoo xam ne dañuy dox ba Padois di dox ba croisement Cambérène te loolu yëpp dafa métti te kenn rek moo leen ko teg kon daal président de la république ñu ngi lay ñaan nga xoolaat sa askan bu baax a baax a baax xam ne lii du dara feebar yàlla moo koy teg doomu aadama kum ko teg rek mu nekk ci yow kum ko teg yi mu xam ne teggi na ko. càq-càq bi ngeen di def fii nii di yóbbu ay nit. est-ce ngi ciy génn personnellement. waaw cag-cag bi ñu ngi si ñu ngi si génn ñu ngi si sant yàlla bu baax ndax da ngay imaginer tey embouteillage bi lu muy xat-xat-xat nit ñi dañuy obligé jël cag-cag ndax am na ñoo xam ne fa nit ñi bi sori na te temps bi ñu maye tamit dafa gàtt xam nga vingt et une heures euh, dafa dafa trop ndax diggante bi ngay wàccee ba ba nga yeggee sa kër rek embouteillage bi nga fay def parce que boo yeggee doo xam nooy def ba ngay tëdd rek nelaw te loolu tamit dafa métti lool ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax waaye waaw léeg ñu am 4 voyages léeg-léeg ñu am 3 voyages sans départ rek si embouteillage bi sans départ tamit si oto yi ndax ni ñuy taxaw fii oto yëpp mënuñ leen a yóbbu léeg-léeg sax oto yi borom 4x4 yi ñooy dawal yërmande di leen yóbbaale xam nga léeg-léeg borom scooter yi taxaw di leen yóbbaale mais ñu si bëri daal ñun suñ classe yi nga xam ne dañoo yàgg si milieu cag-cag bi ñun dañoo ñëw fi ñu toll taxaw fii pour di di cag-cag nga yeb nit sax mu ne sa waay li nga yeb jaaduwut nangam ak nangam te léegi alors du ci yow ci fële la ndax tey bu couvre-feu amutoon ñun ñëpp mën nañoo dem Petersen di dugg ndànk-ndànk man bu may xëy si damay yóbbaale ak sama moto damay indaale nit ba Dakar du ma ko laaj cent te bu lii amul doon tamit damay continuer di ko def chaque jour ndax man moom du ma fayeeku kenn benn dërëm mais situation bi nu demee la ak essence bi tamit xam nga dañ koy jënd te tamit moto bi léeg-léeg mu am ay réparateur yi ak yeneen ak yeneen moo tax sax ñu def lu mel mais tamit ñu ngi ciy jégaluwaat askan bi jégalu si population bi yëpp xam ne lay métti si ñoom day métti si ñun ndax ñun ñuy dawal ñu ngi dawalee par risque ndax oto yi des fois ñu def noo xamante ni yow doo comprendre mais loolu yëpp mu ngi ànd ak coobari suñu borom bi képp ku mucc ku ne yàlla moo la muccal kon réew mi yàlla na si yàlla def jàmm feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ñun ñii kat bu ñu sañoon dañuy wàcc taxaw fii yóbbu ne rek dem waaye di taxaw fii ay une heure de temps deux heures di xaar client wala ñii di la fay ay mille cinq cent ngay gis koo xamante ni li muy def mënu ko day forcé ndax bëggu la bàyyi njabootam ñu toog noonu lu may ñaan président daal mooy mu bàyyi lépp mu sedd te mu continuer masque yi ba keroog yàlla di fi jëlee mbir mi